waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ñu leen di nuyu di leen ziyaar ñaan yàlla subhaanahu wa taala suñu nuyoo fekk leen ci jàmm ak salaam fas yéene rek dellusiwaat ci sunu jataayu xam-xam bi di ko ànd ak yéen bis bu nekk ci waxtu wi fii ci seen rajo Rewmi FM 97 ngeen ci ànd ak seen mbokk seen xarit Oustaz a Diop di ñaan yàlla rek subhanahu wa taala yàlla defal ñu dégg ak topp ba lii ñuy jàppalante yàlla may ñu ci ñu am ci ay njariñ te yàlla nangu ñu sunu jaamu yàlla ñu ngi woon ci njàpp mbokk yi waxoon nañu leen li nga xam ne njàpp daf koy jariñ waxoon nañu leen i tamit importance bi nga xam ne njàpp am na ko mu mel ni nag bala ñuy ñëw ci njàpp ci dëgg-dëgg ci moom ci boppam ndax ñu bari xam nañ dañ koy defe dañuy jiital yi nga xam ni su ñëwee ci njàpp mën na ko yàq su ko defee yow mi nga xam ni yow yaay jàpp sa njàpp su yàqoo nga mën a xam ni yàqu na ba mën a dem jàppiwaat nga xam ni ñu ngi koy tënk ci baatu iclam wafaqaka allahu taala ann nawaqid alwudu ala qismayni axdaas wa asbaabul axdaas mu ne yaalam xamal ne wafaqaka yàlla na dëppale la ak li ngay jàng ba dégg ko kan allahu yàlla taala mu kawe mi lan ngay xam mu ne anna nawaqidal wudu naka yi nga xam ni dafay yàq njàpp ala qismay ni amee na ci ñaari xaaj ahdaasin boo xam ne ay toj la ay toj yoo xam ne boo amee day toj njàpp wa asbaabul ahdaasi ak yoo xam day sabab toj njàpp am na yoo xam ne directement day toj njàpp am na yoo xam ni indirectement day sabab toj njàpp yooyu nag dala war jàngal benn bu nekk muy ni la ko xam naa dañ lay dañuy fàttalente rek waaye macha allah Sénégal moom ñii fi nekk di Sénégalais yi fonk nañu seen diine lool xam nañu tamit ñu ci bare bari boobu xam nañu seen diine la koy defar ak la koy yàq waaye rek ngeen jàpp ne dañuy fàttalente rek ñu njàngale wuñu waaw te it alquran moo ko wax fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin waaw yàlla neen dee leen fàttalente ndax fàttalente boobu dina leen jëriñ yéen jullit yi waaw su ko defee mu ne kon xam ni daal njàpp daal ñaari xaaj moo ci nekk yi koy yàq benn bi yi koy toj la beneen bi ñuy sabab toj mu mel ni da dañ ne ko yenn mooy yiy toj maa hiyal ahdaas mu ne fa amal ahdaasu fa xamsatun salaasatun min al qubuli wa hiya al maziyu wal wadiyu wal bawlu isnaani min a duburi wa huma al xaaitu wa riixu chehet mbokk yi mu ne yi nga xamante ni day toj njàpp boo koy seet juróom la juróom la nee na ñett yi mi ngi jóge ci zakara bu dee ci góor mooy zakara mooy fi muy tuure ndox nee na ñett yépp foofu lay génne bu dee ci jigéen mooy fi muy tuure ndox moom itamit ñett yépp ci foofu lay génn kon leer na ku nekk xam nga fi ngay tuure ndox ah, kon leer na ndax yàlla moo ne woon wa naa li naasi xusnan bu ngeen dee wax ak nit ñi wax leen wax ju rafet ju tegg naw waaw kon ñett yooyu di génne ci xubul ci fi ngay sa zakara fi ngay tuure ndox bi ci njëkk nee na almasiyu mooy masiyu masiyu nag suñu koy jàngat dafay nekk benn liquide boo xam ne bu nit ki amee bànneex la koy dikkal maanaam pour ma wax la ko bu simple mooy yow góor gi soo nekkee ci période bànneex moo xam da ngaa nekk sa soxna sëy amagul waaye yéen a ngi nekk yéen ñaar masalan di faw ak moom walla ni nga nekkee ak moom yaa ngi wax ak moom ci téléphone ba yëg sa kanam muy jóg maanaam ba ngay jógal gis nga ndox boobu di yëkkati sa zakkara yow góor ki ndox boobu nga xam ni mooy tax sa zakkara mën a jóg nga yëg ni yaa ngi jógal ndox boobu mooy masiw waaw gis nga ndox bi su ñëwee ba noonu nga jógalee ba pare soo demee ba loola jeex bànneex ba nga nekkoon bu jeexee da ngay gis ne zakkara bi day wàccaat wàcc boobu muy wàcc dangay gis ndox mi daal di génn ndax rees na bu reesee rek ndox mi day génn ndox boobu nag di génn kooku mooy masiw waaw defe naa ni kon leer na bi ko ñaareel mooy wët yu wët yu nag moom toujours boo tuuree ndox ba pare maanaam nit ki dem ci toilette tuur ndox maanaam saw boo sawee ba noppi boo toogee ab diir da ngay jékki-jékki mel ni da ngay sentir beneen ndox buy ñëw boo xam day génn tuuti tuuti ndox boobu di génn tuuti tuuti ci ginnaaw saw bi nga xam ni ndox bu woyof lay doon waaye mooy gën a foor tuuti euh, ndoxu saw ndox boobu moom mooy wëd yu moom ginnaaw bu nit ki sawee ba noppi ci lay génn waaye nag day xaw a yéex tuuti dañuy bëgg nga boo sawee ba tuura ndox pare nga toog ab diir gis nga mag ñi sax ndeysaan bu ñu ko daan def bu ñu tuuree ndox ba noppi dañuy dox diggante wanag wi ak espace bu ñu am foofu rek di doxantu dem ak ñëw nga gis ñu jël seen loxo dugal ko ci seen biir tubéy téey seen zàkkara parce que lu tax ñu ngi def les sampa pas aller retour dem ak dikk di dem ak dikk pour que ndox ma des nga xam ne mooy wët yu boobu wala bu fekkente ne ndox saw bi desoon na lu génnagul dox boobu ngay dox day libérer sidit yi ba ñu mën a sotteeku su ko defee bu ko téye ci loo xam xam ne mu ngi sotteeku nag mu dem soog a sotti loolu moo xam desu saw bi la wala desu wëd yu boobu soog a nag ratt ratt zakaraam daal di koy raxas ak ndox maanaam siw ba mu set kooku mooy wëd yu bawlu itam mooy tuur ndox mooy saw waaw yooyu yëpp daf la wax ne la mi ngi jóge ci zakara andiwul nag yu ma xam maniyu mooy ndox bi nga xam ni ci sëy nga koy génnee booy sëy sa soxna nga dem ba nga xam ne sa ndox mi ngi génn di dugg ci moom ndox boobu di génn mooy maniyu waaye boobu day waral sangu set moo tax tudd ko dina ko indi nag ca biir waaye yooyu yëpp ci zakara bi lay jóge mu naa ni ñaari yi des mën a dubari mi ngi génne ci dubur te mooy ci ci ginnaaw waxumaa ñoom ñaar alxaayitu mooy dem toilet dem douche war réexu ak ngelawal xait mooy nga dem toilette mooy dem douche kon fi ngay génne fi ngay demee douche kon dem douche foofu lay génne war réexu ak ngelawal te mooy nga ngelawal ngelawal boobu nag moom itamit ci xaayit ci dubur lay génne waaw kon nag yooyu daal ñooy yi nga xam ne ñooy sabab toj directement day toj directement nga xam ni mooy génne ci nit ki waaw mooy génne ci nit ki waaw lii génn yooyu di génn ci yow mooy toj sa njàpp mi waaw waaye mbokk yi ma indi foofu benn sew-sew benn leeral gis nga yii mu la wax yépp beneen bu ci génne ci keneen taq la du toj sa njàpp su boobaa da koy raxas waaw beneen bu ci génne ci keneen génnewul ci yow taq la sa yére moo xam wala mu taq la ci yaram te génnewul ci yow du toj sa njàpp danga koy raxas su boobaa léegi nag ñu ñëw ci yi nga xam day sabab toj mu ne wa amma asbaabu al ahdaasi fa nawmu wa huwa ala arbaati aqsaamin طويل ثقيل ينقض الوضوء قصير ثقيل ينقض الوضوء طويل خفيف يسحب منه الوضوء wax mbokk yi mu ne bokk na ci yi nga xam ne day sabab toj njàpp mooy nelaw mu ne waaye nag nelaw yooyu am na ñeenti xaaj ñeenti atte yu ca nekk waaw maanaam boo déggee ñeenti atte rek mooy am na yu ca yàq waaye am na yu ca dul yàq mu ne yi nga xam ni nag mooy yàq njàpp bokk na ca tawilun saqilun nelaw yu gudd te diis nelaw yi su guddee diis day toj njàpp waaw nelaw yu gudd te diis day toj njàpp waaye tamit xasiirun yan yanqudul wudu même nelaw yi su fekkee dafa gàtt te diis itam day toj njàpp mbokk yi bala ñuy romb foofu lan mooy nelaw yu gudd te diis ak lan mooy nelaw yu gàtt te diis mooy nelaw yoo xam ni bi nga koy nelaw yaa ngi nelaw ci véranda bi nit ki romb la jéggi la dugg ci néeg bi ba yegg te yëgoo ko waaw bu boobaa nelaw nga day toj njàpp moo xam mu gàtt moo xam mu gudd waaw kon nag mu ngi noonu maanaam daal yaa ngi nelaw waa ji def na fi nangam wala wax na ak ba pare déggoo ko ba nga yeew ñu ne la lu ma doon wax a yow nga ni ah wax dëgg yàlla euh, jotuma koo dégg ah, wala bruit am na fi ba jóge fi yow yaa ngi nelaw yooyu yëpp nelaw yu diis la moo tax su boobaa mu gàtt ak mu gudd yëpp day toj njàpp mu ne bu fekkente ni tawilun xafiifun nelaw yu gudd la te woyof kooku yustahabu minhu lwudu sopp nañu ci moom mu jàppaat waaw nelaw yu gudd nag tawoyof mooy nelaw yoo xam ni waa ji fii mu tëdd ku ko romb gis na la day nelaw waaye ku ko romb rek gis na la ku ku dugg itam yëg na la dina xippi xool la buy nelaw mu nelawaat wala buri bu nekk bu fa am rek dégg na ko ah, yooyu yëpp lu mu gudd gudd sox sopp nañu nga jàppaat waaye du yàq njàpp su fekkente ni nag nelaw ya dafa gàtt lool te woyof lool kooku du yàq njàpp te mooy daanaka nelawoo lu fi waay yëngatu rek yënga ko te yàggul su boobaa loolu du yàq njàpp su ko defee kon fokk ñu xam yooyu ba nga xam ni bu ëllëgee bu la gaaree nga xam ni sa njàpp war nga ko yeesali wala war ngaa jàppaat njàpp lu bees waaw mu ni tamit boo seetee ci asbaab yi ba tey am na ci yeneen yoo xam ni day yàq njàpp bokk na ca wa min al yi allati tanqudu al wudu zawalul aqli bil junuuni wal igmaai wa sukri waaw wa sukri waaw waaw wa sukri arab dafa garaaw boo nee wa sukri nga xam ne dangay def ñetti tomb ci Chine gi sant lay firi waaye boo ko defee siin kese kese muy wax sukri mandi lay firi <laughs> macha allah loolu yëpp euh, alquran wala euh, arab moo riche waaw waaw arab moo riche waaw surtout sarfu sax sarfu mooy changer baat yi waaw waaw ida kaana ilmu naxwi euh, bi shaklin murxama fali sarfi taqwimu alxurufi kaza shakli waaw rechakli waaw kon nag mi ngi noonu bu fekkente ni nit ki dafa dem ba am xel jékki-jékki tàqali xelam su boobaa njàppam day yàqu tàqali xel mi nag moo xam bil junuuni ciig ndof la wala ixma walla boog ci xëm la wa sukri wala boog ci màndi la yooyu yëpp day yàq njàpp maanaam nit ki yore njàpp daal dem ba benn instant àndatul ak xelam moo xam nag ñàkk ànd xel googu màndite moo ko ko teg wala dafa dof ci diggante bi wala dafa xëm ci diggante bi ba tax àndatul ak sagoom su boobaa njàpp loolu yàqu na kooku tamit ci sabab toj la bokk waaw mu ne ndax bu ñu jàngatee li ñuy tuddee ridda muy murtat riddatu te mooy nit ki nekkoon jullit ba yàgg mu jekki-jekki ne man dootuma jullit yéeféer laa wala muy rek dootuma jullit génn naa ci njullit gi génn naa ci diine lislaam loolu mooy murtat kooku su ko nit ki defee dañu koy considérer koo xam ni nekkatulub jullit su boobaa nag njàpp loolu mu ko fekkee loon njàpp la day yàqu moo tax mu ne wa yanqudul wudu bi ridatin wa bi shakki fil xadasi ak it ki sikk ni njàppam toj na waaw ki sikk ni ndax njàppam toj na rek jàpp ni njàppam toj na kooku njàppam toj na wa yu zakari ak ki laal zakaraam waaw laal zakara mooy góor gi daal di jël loxoom laal ci zakaram waaye almutasil li ba nga xam dafa jokk bi baatinil fi ca biir tënk ba aw bi baatinil asaabii wala ci biir baaraam yi aw bi jan bay xaa wala ca boori baaraam ya mu ne góor gi jël loxoom teg ko ci zakaram mooy fi muy séyee wala fi muy sawee moom góor gi mooy zakara su fekkente ni daf koo laal ci dénk bi te mooy digg loxo bi loolu di xonq ci loxo bi njàppale toj na bu fekkente ne ci baaraam yi la ko laale te mooy biir baaraam yi moom itam lu xonq loolu njàppale toj na maanaam daal su ma la ko bëggoon a leeralal dama naan sooy añ fi ngay danke ceeb na ma njaay ni baal nag damay jàngale fi ngay danke ceeb nga xam ni mooy diggante ténk bi ba ci baaraam yi diggante boobu euh, foo ci laal sa zakara sa njàpp yàqu na bu fekkee ni tamit baaraam yi ni ñuy tañ ni ñuy tancaloowee diggante baaraam yi ni ñuy tancaloowee wet gi boor yooyu nga xam ne dafay xonq am lu xonq foofu tamit foo ci laal sa zakara sa njàpp yàqu na waaw kon nag baaraam yi soo ci laalee foofu ma la wax dafay yàq sa njàpp waaw mu ne walaw bi usbain zaidin in xas xassa waaw mu ne gis nga sa baaraam yooyu nga xam ne foo ci laal njàpp mi yàqu na bu fekkonte ni dafa am beneen baaraam bu ca dolleeku jokk ca am na ñoo xam ni ndeysaan dañuy am juróomi baaraam ba pare am baaraam bu ndaw bu ca jokkuwaat baaraam boobu nag su fekkente ni buñ la ci dompee nga yëg ko sulaalee sa zakara njàpp ma day yàqu waaw waaw kon baaraam bi su fekkente ni daal buñ la ci dompee nga yëg ko su boobaa loolu day yàq njàpp kon loo ciy dégg mooy su fekkente ni kon baaraam ba même bu yokkoo te ku la ca domp doo ko yëg maanaam amul loo ciy yëg du yàq njàpp waaw du yàq njàpp kon nag mbokk yi gis ngeen yooyu fokk ñu bàyyi ko xel ndax dafa am solo lool macha allah ci ñu koy faram nit ñi di ko bàyyi xel. mu ni tamit ndax yooyu rek moom mooy yi nga xam ne dafay mën a yàq sa njàpp mu ne ah kay am na yeneen yoo xam ne boo ko defee tamit day yàq sa njàpp ñu ne ko comme lan mu ne wa yanqudul wudu bi lamsi wa huwa ala arbaati in qasada al-lazzata wa wajadaha fa alayhi al-wudu wa in wajadaha wa lam yaqsidha fa alayhi al-wudu waaye wa in qasadaha wa lam yajidha fa alayhi al-wudu wa in lam yaqsid lazzata wa lam yajidha fala wudu alayhi. mbokk yi mu ne. su fekkente ne yiy yàq njàpp la am na ci yeneen yoo xamante ne ni ñeent la yoo xam ne day yàq njàpp mu ne mu ngi mel ni laal soit laal boobu nag sa loxo nga koy defee laal boobu dafay am nu muy tëdd te mooy nga laal jigéen waaw laal jigéen soo jëlee sa loxo teg ko ci mbaggu xale bu jigéen loolu mooy laal loolu mooy laal waaye nee na ñeenti xaaj la nag te mooy laal bi mu ni su fekkente ni jublu nga ca bànneex ba ngay jël sa loxo di laal xale bu jigéen bi danga caa jublu bànneex ba pare woo ca daaxaa nga am ca bànneex fa alayhi alwudu war ngaa jàppi sa njàpp yàqu na war ngaa jàppi waaw kon daal ki laal xale bu jigéen moo xam sa soxna la moo xam sa soxna sax moo tax ñuy wax ndax jàmbur yàlla moom lislaam mañu la sax nga koy laal waaw ala xaal daal boo laalee jigéen daal jublu ca bànneex ba pare am ca bànneex sa njàpp yàqu na wayin wajadaha bu ca amee bànneex ca laal booba walam yajidha walam yaqsidha waaw walam daal te jubluwu ko ca woon fa alayhi wudu njàpp war na ko su fekkente ni yow bi nga koy laal jubluwoo ci bànneex waaye mujje nga ci am bànneex yow njàpp war na la wa in qasadaha walam yajitaha fa alayhi wudu su fekkente ni ba nga koy laal danga caa jublu woon bànneex te mujjoo ko caa am sa njàpp yàqu na parce que yéene baa tax innamal amalu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa mu ne kon nag su fekkee danga caa jublu woon bànneex ca laal ga te mujjoo caa am bànneex sax sa njàpp yàqu na mu ne nag wa in lam yaqsidi lazata bu fekkee laal bi nga laal ku jigéen ki jubluwoo ca bànneex walam yujitaha te amoo ca bànneex fala wudu alayhi njàpp waru la njàpp waru la kon daal ñeent yi leer na mbokk yi waaw in qasada lazata boo ci jubloo bànneex wajadaha nga am ca bànneex fa alayhi war na al wudu njàpp wayn wajadaha su ci jubloo bànneex maanaam wayn wajadaha su ci amee bànneex walam yaqsidaha te jubluwu ko ca woon fa alayhi war na ko <coughs> moom waaj su ci jubloo bànneex walam yajidha ta mujj ca am bànneex amu ko ca fa alayhi alwudu njàpp war na ko wa in lam yaqsidi lazata bu ca jubluwul bànneex walam yajidha te amu ca bànneex fala wudua alayhi njàpp waru ko kon mbokk yi defe naa ne loolu leer na naññi naññi naññi macha allah euh, nga xam ne mooy xaaj yi nga xam ne toujours nit ki war na koy bàyyi xel ci sooy laal nit ki walla ngay jëflanteek moom soo ca jubloo rek bànneex am ko caag ñàkk ko ca am yëpp mu jàpp ma yàqu na soo ko ca jubluwul te mujj ko ca am yàqu na soo ko ca jubluwul amoo ko ca nag njàpp li yàquwul kon nag njàpp ngi noonu sabab yi koy toj a ngi noonu indi nañ ne ko te incha allah bu nu fi yàlla indee subaa jàmm ci waxtu wii ñu continuer incha allahu ci yi nga xam ne jàpp nañu itam day continuer di yàq njàpp su ko defee mbokk yi ngeen aloon ceeg seen xarit seen mbokk Oustaz Gora Diop fii ci seen rajo Rewmi FM 97.5 wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu